<laughs> ayaya Macky Sall de fan yii man damaa ragal na Macky Sall fan yii daal yaram bi tàng na tàng boo xam ne kenn mënu koo téye ah. poste premier ministre bi nag indi na coow ah. ndax ñoom ma dikke ñaar ak ki nga xam ne mooy Idrissa Seck ak Sonko Issa Sall waxtaan nañu démb nee nañu poste boobu par A par B kenn du ko dindi Macky Sall ne moom dindi na ko ba pare parce que assemblée moo fa ëpp ay député te loolu day dañ waaye Macky Sall nen na xale yi naan sàngara Jakarta nga xam ne cent franc nga ne tak ne zuy jàpp ko ci cent cinquante jëm ba deux cent xale yi nga koy jiiñ sax mag ñee leen ko gën a bëgg moom Macky Sall ma ngay aaye Jakarta waaye ma ngay tëkku opposition bi tamit ci li nga xam ne moom la bëgg dina ñu mu ko dal ñu te yaram bu tàng ba fan nga xam ne man maay président fan si président Macky Sall mi nga xam ne taa yaram bi dafa tàng Sall gaari <laughs> ñu seeti ko. salaamaaleykum. maaleykum maa ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant. woote bi nga xam ne woote naa ko pour waxtaan a yéen ci ñaar fànn la. fànn bu njëkk bi mooy poste premier ministre bi nga xam ne dindi naa ko mu commencé indi ay lam-laame. ñi nga xam ne ñoo koy lam-laame. di ñi nga xam ne dama leen song daal leen. ñu ne duñ ma remercier duñ ma féliciter bu ñu taxawee tey di wax ne man moo dindi lii kon ñoom gàcce ngalama. gàcce ngalama. parce que loolu mooy félicité le président par intermédiaire yow nee nga na man dama doon bëre yow ma daan la nga na ma bëre woo doo ma félicité waaw léegi su ma amalee sama doxalin kay bul taxaw di ko weddi yow da nga taxaw bañ ne man du ma président ndax félicité woo ma du Idrissa Seck du Issa Sall du Sonko du Madické Niang amul kenn koo xam ne yëkkati nga sa téléphone na reconnaître nga na daan naa la waaw léegi su ma demee ba dindi poste premier ministre ñu taxaw naan. loolu du fi am tey kon ñoom nangul nañ ma li nga xam ne moom laa leen def mooy duma naa leen daan leen ñaareel bi loolu bu ñu demee assemblée samedi le 4 incha allah dinañ ko waxtaanee te xam naa ne danaa ci jëlee ndam ni ma commencé doxalee am na ñoo xam ne neex ma leen waxtaan naa ci benn président boo xam ne dañ doon waxtaan mu ne ma sa peuple bu mu leen yoroon dinaa leen yar ci 24 heures te ñooñu. ñun ñoo leen gën a yor li nga xam ne moom mooy yar ak yarle ndax li fi nekk ci ay kilifa diina ak ay daayira ñoom seen dëkk amuñu ko mais pourquoi pas ñun ñu mun a yaru yarle ne ma mën a dama jël sama yet di leen yar waaye ñaari yi maa leen jëlal décision ngeen xam ko sàngara si nga xam ne ñu koy naan te xale yi tuddee ko Jakarta nga xam ne boo xasee ba taal mu dem doo xam fan ngay mujjee te xam ngeen na Jakarta nu mu gaawee Jakarta sàngara moo ko gën a gaaw li ma bëgg nag mooy képp koo xam ne fekk nañ la ngay jaay Jakarta wax bu ñuy dawal mais bu ñuy naan état bi dana dal sa kaw nañ la jàpp te mun nga ci dem ba juróomi at kaso sàngara la boo xam ne xale yi ñoo ko doon naan mais man ñaa ngi koy njëkkal ndax xale yi ah? qu'est-ce que ça veut dire le xale yi balaa ñu duggati jàng école yi xaq nañu def seen bët yi xonk bu ñu demee di indi ay agression war a def naka su dul noonu loolu laa bëgg que mu jax takk parce que réew boo xam ne xale yi ñoo ëpp mag ñi bu ñëpp nekkee ay mandkat réew moomu ci boppam dafa nar a saajaloo war mu baajaloo décision boobu nag maa ngi demandé le ministre de la commerce bu yor commerce bi ak ministre de l' intérieur ak ñi nga xam ne mooy ministre de la jeunesse pour ñu taxaw temm ci li nga xam ne mooy sàngara si ndax sangara da lay tàggal ak sa sago boo demee ba nekk mag sax da lay tàggal soog ak sama ngay soog a buddeeku soo koy xamee adduna naan da ngay daan Jakarta combat bi nag bu mu nekk combat bu ministre commerce kese na nekk yéen ñëpp jawriñ yi nga xam ne yéen a fi toog képp koo xam ne ministre nga na nga jël loolu économie finance ministre de la santé parce que yooyu yëpp dafa lëkkaloo ak sangara si debout

ñaareel bi may tëjee. waaw seen ndombo yi ngeen di takk di ñëw fii ci pale bi laa bëgg ngeen tekk ko balaa ngeen fi duguti parce que seen xar xa fuufu yi ngeen indaale fii war a di xeeñ saafara dinaa fa def benn machine boo xam ne anti ndombaloo parce que ku yàlla dimbali ba ñu fal la ba pare say ndomb nanga ko tekk tekk fële parce que day indi ay perturbation di defe yoo xam ne naka sunu noonu damu assi fu gisatu ko naan sàngara rek di nga xam